ba nga dégg sëñ Tuubaa ne abdullahi wa xadimu rasulihi moom jaamab yàlla la waaye kan lay liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye xoolal li yonent bi liggéey nag moom moo tax boo nee nangu ca kaw ñu lay liggéeyal rek te yow liggéeyoo dara yow mal xiyaam di nga am mbetteel gis nga ki ci suuf di la dawal yow mal xiyaam dana jot ci yàlla loo xam ne yow mi toog ca kaw te defoo dara doo ko jot adduna ay tool la ay tool nag ku fi dikk fas yéene féexlu képp képp nga fi bëgg a nekkee bés boo faatoo torox léeg-léeg sax bala ngaa faatu ngay torox barab boo toog ne duma fi jóg yàlla xëpp la xiif xëpp la mar xëpp la coono bu la neexee bu la naqaree moo tax génn liggéey rek waaye nag liggéey bi dañ ci dul sóoraale àllaaxira li ci ëpp dañuy liggéey ngir àdduna rek ku toog képp képp fasante ay loxoom daanaka gisoo ko bu lekk jotee nooy def da nga lekk di danga nga sàq mi di bu la neexee bu la naqaree jëmm ji ñu yàlla jox boo ko seetantalee rek xam ne ay jumtukaay la ay njëfandu la ba mu jeex ay njëfandu la ku la ko jox daa bëgg nga liggéey moo tax àdduna ay tool la boo ko jàppee tool dafay jàppandal ci yow bul xëy nag dal di bay déedéet demal wuti xam-xam dafa am xam-xam boo xam ne wala xam-xam yoo xam ne am bi nga koy am moo lay jàppandalal mbay gi ba boo noppee ci mbay gi yàlla mi nga xam ne moo la fi wàccee ci tool bii daal di gërëm sa liggéey boo xam-xam amut yàq rek mën ngaa sonn lool mën ngaa góorgóorlu lool te du la jural benn njariñ du àdduna du àllaaxira ndax xam-xam moo ko lalul kuñ jëloon àll bu yaatu boo xam ne suuf sa nangu na jox la jiw woo xam ne jiw wu baax la te amoo xam-xamu mbay doo fa génnee njariñ moo tax nit ñuy jiitalee xam-xam ci suñuy mbiri àddina ndax waruñu woon yóbbu ci ñu settantal xool ba xam suñuy mbiri àllaaxira suñuy mbiri diine ñi ngi ciy jiital xam-xam balaa ngaa woote ne maçon laa tar bi nga xam-xamu maçon ba nga xam ne ku la ne tabaxal ma nga mën koo tabax xolam sedd mu fay la ngeen dem ci jàmm waaye boo amul xam-xamu tabax mu jox la tabax loola ndax da nga tabax lu baax ndax da ngeen juboo ci poñante ngeen jëm xam-xam baa fa nekkul niki noonu ci menuisier niki noonu ci bureau yi koo gis mu toog ci bureau rek lañ ko fa tegee du jëmm jaag sant waag moo ma neex déedéet xam-xam ba lañ wóolu su ko defee nag jaamu yàlla itam dafa aaja ay xam-xam yoo xam ne moo lay jàppandalal nga mën a jaamu sa borom te boo ca noppee yàlla daal di gërëm xam-xam yooyu leen nag moom lañ gën a ginnaawal ci kaw suuf xam-xamu diine xam-xam bi lay xamal sa borom. ba mën laa xamal la yàlla gërëm nga sax ca la yàlla gërëmul nga woon ko ginnaaw ba faw xam-xam yii ñim yitteel bëriwuñ léeg-léeg ñim yitteel sax bañ koy daw di ko wuti rawatina buñ dee ndaw dañ naan ña ngay tardé ndax xam-xam yiñ gën a gërëm ñu ci baree bari mooy xam-xam buy defar sa àddina rek te àddina moom du defaru amul kuy faatu te doo fi bàyyi ay mébét du jag gannaaw du jag nag am ci sago fexeel ba am loo lekk am loo naan am foo suturloo ak foo tëdd boo ko xasee ba am yeneen yoo wutati rek lu dul waajal sa allaaxira daanaka yaa ngi dugal sa bopp ci guuta kenn du ko jagal wa rubama yakunu ja shawaaxil muxtarima sëñ Tuubaa nee na bëri waa na ku nekk boroom soxla yu bari dee daal di ñëw dagg soxla yépp te yow sa dund gi daa mel ne danga nga koo jeexal ci wut kër wut oto wuti soxna xëy nak bayi len ci barab bi duggu ci barab bo xamne ndax am nga fa keur yow ndax am nga fa soxna ndax am nga fa lu wété wéetal lu dundal boko ko amul dana doy waar yi te yag yag dem fa bu la neexee bu la naqaree moo xam-xam nit ki bu fekke yewuna na kenn du ko ci wutil xam-xam da fay xam jeriñal xam xam-xam mota tax damay faral di wax ne xam-xam warta don luxe luxe luxe maanaam loo xam ne lu gànjaru la déedéet xam-xam li muy jural nit looloy mbir mi looloy li gànjaru waaye xam-xam ñépp ko war a am talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin yontu saa san dafa wax ne sàkku xam-xam farata ci jullit bu góor farata la ci jullit bu jigéen farata nag mooy loo xam ne kenn du ko wutal kenn kenn ku ne dalaa war nga wuti ju ko waaye xoolal réew mi boroom xam-xam ni mu ci amee daraja kuñ ne borom xam-xam la daanaka day daal di mën a tàmbalee gongeeku kaay waxtaanal ñu kaay soññal ñu kaay soññu ñu kaay waar ñu kaay leeralal ñu nangam mel ni moom mi mu leer ci moom ba mu leen koy leeralal moom rek ko waroon a wuti moom ñëw leeralal leen déedéet ni mu ko wuti jee ba xam ko noonu ngeen ko war a wutijee jee ba bu ci boole lu ci bokkul ngeen xam ko bu ci génnee lu ci bokkit ngeen xam ko lii mooy li war a am di. waaye waajee wuti xam-xam boo ko dégloo mën naa juum sax te doo xam ne juum na moo tax ñu ne isa zallal aalimu zalla bi zilatihil aalamu borom xam-xam bu fekkee tarxiis na ca tarxiis gam tarxiis daf cay yóbbaale aalam bi aalam bi ndax ñi koy dékk seen nopp yaakaar ko moo bari te mën naa juum boo amee xam-xam nag bu juumee rek nga xam ne juum na loolu nag kenn ku ne daf laa war ci lislaam boo dee ku bu tariha mu war la ci sa tariha nga fexé ba xam ko xàmme ko ba ku la ci wo ci lu dëppwul ak tariha ba nga xam ko lu am solo la mo rabbe na borom xam-xam fay wax ne faarifil xaq taarif ahla ne fexé la xam deug bes bo xamé deug rek kep ku bokk ci ñun deug nga xam ko du wut ne di wako wax deug la bëri ñoo ci gal gi lañuy dox di wako wax deug la déedéet da ngay xam deug yow xamal deug bu di waxee ba noppi nga jël lim wax natt ko dëgg xool ba xam dëppoo naam dëppoowul bu dëppoo nga ne dëgg la bu dëppoowul nga bàyyi kook ay waxam waaye day fekk yow mi toog di déglu nag nga xam dëgg yow waaye bu dee nag dëgg toogaale woo ko da ngay xaar waa ji wax nga ne dëgg la mën nga ne dëgg la ci lu dul dëgg ndax peesekaay bi lay dimbali ba nga xam ba xam dëgg la am du dëgg amoo ko te li ëpp ci saa Sénégal yi mooy sénégalais yi loolu lañ amul nattukaayu dëgg l'islam dina ju mat sekk la biir ak biti kon boo nee moom ngay dund rek desee dëggu desee jub desee am pas-pas di mooy yàlla bi bisi yàlla tey bii war ngaa xam ne sa l'islam matut te da nga ko war a mottali yoon wi ngay jaar ba mottali ko da nga ko war a gëstu xam ko jaar ci tam jaral la kenn ku ne boo amee gàllankoor ci sa yaram balaa ngaa am jam gàllankoor ko da ngaa tàggoog moom te bëri ñu muy dal tànk bi da koy jëfandikoo num la neexee solos tànk sax doo ko xam li fekk tànk bi mettiwut wala mu am góom ba mënoo dox ci ngay xalaat naan tànk bi bi muy jàppandal ndekete mënal la na ma nangam ak nangam ndax mos naa cee toog man képp ci sama ruq sant yàlla ci tànk bi nga xam ne laajul réparation defaraat waaye doo ko yëg sax li fekk mi ngi normal moom doomu aadama dafay beew gis boppam bu jagadee nag muy soog a dellu ci yàlla ñaata yoon la ko suñu borom wax ci alxuraan moo tax dégg nga sëñ Tuubaa wax la ci Masaalikul Jinaan ne la métit yi coono yi fitna yi nattu yàlla yi nee na xéewalu yàlla yaa ngoog parce que ñoo lay delloo ci sa borom jaam lépp lu koy delloo ci yàlla bu ko yaakaaree ne nattu la wala boog lu bon la daa xamul boppam ak réere yàlla tax waaye nit lépp lu koy delloo ci boromam mu koy koy gën a ragalloo di ko ko gën a xemmemloo loolu tawféex la ci moom te boo seetloo jaam ñi loolu la ñuy jàmbat fekk ne moo lay delloo ci sa borom xoola tey dee rek boo amee mbokk mu la jege mu faatu li ngay njëkk a def mooy caalit daa caalitoo ngir ci faatu de waaye dangaa dalaa fàttali loo xam ne di ko def yàgg yàgg te fàtte woon nga ko tiitaloo ki faatu waaye sa bopp nga tiital ca nga jëm te moo ne bu kenn faatu wulit war ngaa xam ne yow kuy faatu nga jarul xaar nit faatu fàttali ne da ngay faatu wala nga dem almeere ngir fàttaliku ne da faatu déedéet nit nga da ngay faatu yàlla mi la bind te tàgguwu la moo lay rey saa bu ko soobee bàyyi fi sa bopp biir yàlla may ko kenn bu ko doon may yont bi la koy may waaye àdduna moo baaxoo di dem ak dikk ku mu neex ku naqari dara du taxaw nag koo yaakaar ne bi fi bàyyi ko dara du baax dana fi bàyyi ko te lépp di baax bu si yàlla tey ku fi mënta ñàkk amul kenn képp la muy yàlla ku dul moom mën ngaa ñëw dem te dara du yàq kon kay ñun ñu woyof ñii bu ñu bëggee yaakaar ne fii la sax ba faw wala suñ dund yi am na solo soo xam ne waruñ fee mën a jóg dañuy nax suñu bopp lu fi jógee Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëlee fi Serigne Touba jëlee fi Cheikh Tidiane jëlee fi Cheikh Moussa Cissé mii kum fi bàyyi dangay nax sa bopp li am solo mooy fañ jëmmatoon seen dund ba jëlee gim leen fi jëlee sax daa mel ni jógewuñ fi loolu lañu war a xalaat ji foofu suñu dundu ñun te foofu lañ ñu woo ñoom waaye ñun feneen lañ leen di wuyu dañ lay woo ci guy gi nga wuyu ji ca daqaar ga sëriñ bi dalaa woo ngir yóbbu la ci yàlla sëriñ bi dalaa woo ngir nga méngoog yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci jàngaleem yow nga koo wuy nag ci kañ ko yëkkati ko képp ku dul moom nga suufee ko woyofal ko gënalante sëriñ gi ci Sénégal kéemtaan la fexee gënee ci sëriñ si moo ëpp solo foofu di leen gënalante ñoom da ngay fexe ba topp leen bañ defar la nga gën di ku baax koo xam ne sax mbaax ak sa ngëneel doo ko jaay sa moroom waaye ku jëflanteeg yow dina xam ne kii ku defaru la ku gën la biir ak biti li mooy lépp solo waaye tijaan buy bañ murit murit buy bañ tijaan coow loolu nit ne xus ci réew mi tànn la foofu ko natt weesu na ko waaye ban njariñ la am ndax Seex Tijaan moo ne kaay leen gën a lante maag diw wala sëñ Tuubaa ne leen kaay leen gën a lante maag diw déedéet loolu suufee yaay kii suufee loolu am la ba noppi moo tax mu wax ko kon dara jaam ba faw du jëm suuf kaw képp lu jëm te ku ne gis na ko day yokk saa su ne boo yaakaaree ne nag sa wax mën na koo yokk wala keneen yaakaar ne waxam mën na koo wàññi yow dafa mel ni li sëñ bi gëm li sëñ bi wax sax gëmoo ko yow diw wax na lu safaanu diw nangam dama koy tontu ngir su ko defee dara jëlee sëñ bi mu bëgg suufee yow sëñ bi nee na du wàcc sëñ bee ko wax sëñ bi moo ne du wàcc kon kay boo ko mënee laa biré laabire ko te laabire gi na tege ci jagalim seigne touba lu ba ta bàyyi xel la léeg-léeg nit mën naa diŋat wala mu wax lu di nga ne danga koy gaganti gàggantee ko lo xamne yow moy nga seigne touba yow moy nga digelu seigne touba lu ko jar murid sa bu wacce ndigal murid sa bu wacce yar ak teggin keneen la top ndigal way du seigne mo te léeg-léeg nga jema a ko xamne ñak teggin gi nga ci rax bo yaakaar seigne touba tubaa nako da ngay nax sa bopp sëñ tubaa daraan wax ne kër gi ku fi jëlee yar gi bàyyi woo fi dara ku fi bàyyi yar gi jële woo fi dara yaree ko taxoon a jóg kon boo nee da koy waxal wala da koy jubbantil fexeel ba mu tege ci yar ak i teggin ak njub ak xam-xam li képp la waaye boo yaakaar da ngay jéem a yëgit dara jëy sëñ bi ci ay ñàkki teggin loolu yaa ko gërëm waaye war na laa leer na sëñ Tuubaa gërëm ko lu mat a bàyyi xel daraam jëmul suuf daraam jëmul ginnaaw léppam kanam lu jëm te du koo bind wax ko wax ne yàlla suñ borom wallahu ala ma naqulu wakilun lii suñ borom moo ko tamponge ku ci mën dara li am solo nag mooy demee na noonu fexeel xam li taxul a jóg sëriñ bi lan la nga ne ci ñàpp kese wootewul ne kaay leen xam ma kaay leen jaamu ma doo fekk fu ko sëriñ bi wax mukk ci àddina rawatina fu mu ko bind kaay leen xam seen borom kaay leen jaamu ji seen borom nim leen ko santee nag loolu dafa aji xam-xam te lii sëñ bi woote boo demee ci Cheikh Tidiane Serif loolu ngay fekk mu woote ko Abdou Khadir Jilaan loolu ngay fekk mu woote ko moo tax ku leen wuy te àggoo ci yàlla xoolal sa bopp wuy te leer na ne sëñ Tuubaa yóbbu jaam ci yàlla ko taxoon a jóg wuy ji Cheikh Tidiane leer na ne Cheikh Tidiane yóbbu jaam ci yàlla ko taxoon a jóg Abdou Khadir Jilaani li ko taxoon mooy yóbbu jaam ci yàlla Seydina Limaamu yóbbu jaam ci yàlla leen taxoon a jóg kon nag boo la wuy jee te yeggoo yow la wala ñoom la yow la di mun a wax mukk ne ñoom la yow la ak ka nga yaakaar ne mate na diw moomu ne ndax fekk ko jamono ku bëgg a àgg ci yàlla fooy fekk sa njubaa ci sa sëriñ bi nga jébbalu ku bëgg a àgg ci yàlla fooy fekk Cheikh Tidiane ci sëriñ bi nga jaayanteel mu jox la wér muy sama muqaddam ci xaadar geeg fu ci man di doon sëriñ bi nga jamonoon ne moom nga jaar la sa ak sëriñ boobu leen mooy sa wasila bi nga xam ne boo fi fekkoon sëñ Tuubaa li muy def ci yow moo ko war a def ci yow ne mata na ko bu ko defee ci yow te mu nekk ci yow nga di ko dund wallahi azim doo mukk mukk sa mbokk tijaan wala sa mbokk wala di ko diingat xalaatoo ko ndax yéen a bokk fa ngeen jëm nit doon laayeen ba dootul doon jullit nit doon tijaan ba dootul doon jullit nit du doon murit ba dootu doon julit ay mbokki julit lañ te mbokki julit kii seen kilifa mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am lu mu jàngale lu war diggante julit ak morom ma te mu dëpp ko alxuraan innamal muminuuna ixwatun fa aslixoo bayna axawaykum lii yàlla mi bind yonent bi bind sëñ Tuubaa bind Seex Tijaan bind Abdul Xaadir Jilaani moo ko wax nee na ñi gëm yàlla ay mbokk lañ na rafetal seen diggante mbokk yontu bi leeral nañ ko ci pe ci fànn yu bari laa yuminu ahadukum xataa yuhibbu li axiihi maa yuhibbu li nafsihi kenn ci ngëm yàllaam du wér te du wut ne lim bëggal boppam loolu la bëggal moromam loolu nag nañ ci natt suñ bopp ana murit yi nga xam ne liñ bëggal seen bopp moom lañ bëggal tijaan yi li tijaan yi bëggal seen bopp loolu lañ bëggal murit yi da ngay dem ba ngay dégg ñuy fooye naan am na koo xam ne bu yoroon caabi àjjana am na keneen koo xam ne jurit na ni moom te bu ñëwoon du dugg te àjjana ko mën a feesal ñëpp ca xaj mën na yàlla ko mën a jeexal ñëpp ci xaj ji kon tee koo ñaan yàlla mu may la ko sa morom am ko ni yow mooy li am solo kéemtaan la maam Serigne Fall daan wax ne rëy sëriñ rëy jëfa ko gën am na ñu dem sawara ñoo xam ne seen sëriñ mooy sëriñu suñ sëriñ sii mooy yónent bi alayhi salaatu na sahaaba duma ma ne saxaaba sax moy ñu andu ak yonent bi rek mais amna ño ñoo xam nañ jëmono yonent bi ak ñom ta ñinga sawara jaayante ba jubul surtout munafiqun bi bi ko yalla suñu borom di wacce dana ñoo ñu ñinga biir sawara ta dañ top yonent bi topp gu jubul sagam top gu di ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam sam sangu señ tuba di sangu Cheikh Tidiane mën na tabani sawara sàkkaan ak ñu top señ tuba topin wu jubul wala Cheikh Tidiane waaye nga yaakaar ne taalibe sëñ Tuubaa laa rek maa nga àjjana ngir bayit yoo xam ne yaa ko déggul te moom sëñ Tuubaa wax na ci bayit ne am na ku tàbbi sawara te la ko tàbbal sawara mooy ñàkk dégg arab daa am lu yàlla wax wala góor yàlla wax ko nga dégg ko noo xam ne dëppwul ak moom ni mu waxee ba mu jural la mbewte goo xam ne moo la tàbbal sawara yow lii sëñ Tuubaa bind na ko mi ci ci Mawaahibul Xuddoos sëñ tubaa nee na kullu muridin bi yaluzu yasaadu wa innahu min al azamu baadu sëñ tubaa nee na képp kuy murid bu jaayanteeg man jokk ci man nee na kooku yasaadu dafay texe wa innahu min al ba baadu kooku dafay sori ak lor genn lor du ko jege léegi man jébbul naa rek maay murid boobu texe naa kon dana yomb di que sax dana yomb da nga naan sëñ tubaa murid gii muy wax kan la loolu nga war a laaj moo tax faral di wax ne ñi ñuy waxtaanal ñun ñi leen di déglu dañuñ kumpa dañuñu kumpa ñun ñun ñuy déglu murit texee na murit day tàbbi na murit day mucc murit day am ngërëmal yàlla xam nga loo ko war a laaj kan la sëriñ bi ne mooy murit moo ci war a tege murit moom day texe sëñ tubaa ko wax loolu boo ñu ko waxee boo ñu ko wax gannaaw sëñ bi wax ne mooy liwéer waaye nag sëñ tubaa bi mu waxee loolu kan la wax ne mooy murit akamata leeral te léeg-léeg wax ñu loolu moo gën foofu dañuy jéem a yëkkatil darajey sëriñ bi sëriñ bi sëriñ ñun ay murit lañ gëm nañ bi jeex wóolu nañ ko doyloon nañ ko keneen ku wootee lijjanti wuñ ko mënuñ koo topp ndax topp nañ Sëñ Tuubaa ba noppi ndax moo ñu doy gannaaw doy nañu ba noppi nag li liñ ñu war a leeralal mooy nan lañuy ñuy fexe ba ñun ñu doy Sëñ Tuubaa ay taalibe ba duñee kenn ci taalibe nan lañ war a doxee ban pas-pas lañ war a am ñu war a dundee dafa am benn soxna bu doon bind thèse ci yoonu murit mu dem gëstu ji mbindam sëriñ bi ba mu ca bàyyeekoo dane murit gi mu gis ci mbedd mi ak murit gi bind ci téere yi bokkuñu maa ciy faral di teg ne mbër gi ci medd bi am na cofeel cofeel a ngi ci bëgg sëriñ bi mi ngi ci mais lan mooy jafe-jafe bi mooy lan la sëriñ Tuubaa bëggoon loolu néew na murit xam ne mën koo làmb fekk ko ci moom mais gis na bi nga xam ne bëgg na sëñ Tuubaa bëgg la sëriñ bi bëggoon mu ne ca ñàpp sax ca kooku weneen doxin faaw dafay judd ci moom bu bokkul ak nag ay sëñ bee fi nekk tàmbali jëm ci sëñ bi sëñ bi amul morom ak dëgg la yii yëpp sëñ bi amu ko waaye nag yow loo jele ci loolu nag gannaaw bu señ bi nekké fi amul morom jambar, la mo fi gën lum la jural yow mi koy wax bu dé ba fa bàyyi ko toj say kaas sangara mëna ko koo jëfëndiko koy bind ci facebook bi wax maam Cheikh Fall dana képp ko xam da ngay jaxasoog jigen joo takkul wala ngay tux wala ngay naan sangara maam Cheikh Fall néna bu ëllëgee do ma gis benn waaye ne way, kenn mënuñoo tee gis maam man waxuma ko du samay wax dama ko jottali rek kon dalaa leer ne moom lii maam Serigne wax ne képp koy jëfandikoo boo ëllëgee doo ma gis moom ci la bóof te waaju koo bàyyi yow kon noo gëmee maam Serigne Fall wala gëm gi moom ci xol bi lay nekk rek nga ne ko gëm naa ko gëm gi dafa am jëf yu ko war a yu war a ànd ak moom defal nga def bàyyi nga bàyyi amul kenn koy topp ne ko yaay sama kilifa wala yaay sama wasila mu maanu ci yow lii bu ko defee boo liggéey yàlla rëq ndigam yàlla ko wax sëriñ bi bu matee sëriñ dafay bàyyi xel digganteem ak yàlla ci yow taalibe itam su matee taalibe dafay bàyyi xel digganteem ak yàlla ci sëriñ bi ñaar ñi buñ dajee dañuy lëngoo dox doxin wu rafet kii dafay ragal yàlla ci sëriñ bi sëriñ bi ragal yàlla ci taalibe bi du ko jay du ko wax lu mu gëmul du ko jottali loo xam dëppul lu ko yàlla jottali du ko tere lu ko yàlla terewul xalaatu ko sax kon kooku dana la digal waaye lim lay digal mooy li la yàlla digal lim lay tere mooy la yàlla tere amul sax dem na ñëw lépp lu yàlla xaraamal dafay fexe ba nga won ginnaaw loola dimbali la ca nag lan la cay dimbale jox lay ngànnaay tuddal yàlla jëfandikool askar sàngam nekkal ci tool yi mooy malaat bi nga xam ne faw danga koy entrer hôpital ngir defar ko dafay am waaye dafa mel ni yooyu yëpp dañ ko fanaan ñukk ndax dafa jafe de benn borom xam-xam dafay wax ne gis nga suñu yoonu tasawuf yii dafa am tolluwaay yu bokul amna na tolluwaay yoo xam ne dal ba manam boy soko duggu ci l'école bi jardin d'enfant fofu la toll mo gën xum la bo joge jardin d'enfant duggu élémentaire xawa tambalé mos touti A B C D nangam 1 plus 1 égale 2 bo fa baye ko duggu CM duggu ci X ak Y yi kenn ko déglu rek ba ci yàlla may xam-xam mën nga xam fu mu doon lele nit waxe fo day leer ne da am fu mu toll rek fa fa nga toll fa ngay waxe nak waaye foofu dañ faa war a jóg moom lay faral di misaal ne buñ newoon këru lislaam a ngi nii boo fa làmbee fekk fa ñoo xam ne lislaam jaar naak ñoom foo xam ne dañoo séexlu lépp lu bon boo fa làmbee fekk fa ñoo xam ne lislaam jaaragul ak ñoom foo xam ne ñime nañ lu bon ñoom am na ci jullit ñi ñoo xam ne séexlu nañ lépp lu bon am na ci jullit ñi ñoo xam ne séexlu wuñu lépp lu bon te moo ne jullit la kii fan la jaar ak lislaam ba lislaam séexlu loo lépp lu bon kii nag fan la jaaragul ak lislaam ba seexloogul lu bon jar naa laaj lislaam day màgg ci doomu aadama bi dafa war a weesu dégg yàlla nga ba sa borom nga ne ko jàkk ci lépp lu mën a doon ay leex saan jullit piir dafay gis yàlla ci lépp waxuma gis yàlla képp xam nga gis yàlla rek dañuy xalaat ne am na benn waay boo gis wala mbir moo gis ne yàlla ngoog loolu ni ngeen ko weddee lañ ko weddee jullit dañ koy yar xool du ca gis kudul boroomam subhanahu wa taala moo tax ki lay dingaat sax naa la yàlla yàlla bi lii nangam gis yàlla du dëgg moom sax li muy bañ yaa ngi ko koy def moom yaa ngi gis yàlla ci moom moo tax boo ma mbéjee ma ne la jéggal naa la boo ma saagaa ma ne la jéggal naa la bu yàggee yaay dem ba xam ne ji kat gis yàlla bii wér na ndax bu gistoon yàlla dana jëflanteeg man waaye léeg-léeg koy yéex a xam sax waaye koo saaga fay wut koo dóor fay wut koo tuumaal fay wut moom ma nga ca nekk rek te li nga nekk yow yéen ci bokkoon ne mu bàyyi la ci duggu ci loo xam ne fekk si ko ci te gisoo ko mu wax lu bon gisoo ko mu def lu bon baatub laa ilaha te nit nag kum ragal rek lim ko ragalee mooy mën a lor ak bari njariñ kese njariñ lim yor lay bañ mu raw ma wala lor lim yor lay bañ mu xëpp ma ko njariñ ak lor nag kenn ko yor muy suñ borom subhanahu wa taala an nafu wadur min arrahmani laysa min albidani bidani wa yàllaa yor njariñ yàllaa yor lor kon lu ñuy bëgg ci képp ku mën doon bam tax ñu ñàkk sa ko ci suñ borom bañ a dellu ci moom loolu yàllaa ko jar waaye kéemaan la waaye nag ku ci yeewu kenn du dox sa diggante ak sa borom kenn du ci dox ndax xam nga ne bisa ngi ñëw boo xam ne boo ko bëggee wéetali ko du sotti misaal bi daa leer di bàmmeel lu jege la kan nga gis mu bëgg nit jeex tàkk ci moom ba ne suuraale leen ma ko moom kay yaay dem ma dellu rek xaar sama àpp man Takuya ku yàkkamti ba jele fi sa bop la nga yeg ba jele fi sa bop lu ko gëna tar ngay fekki loolu yalla ko ku xaru mom lu gëna metti la tax nga xaru ngay fekki yow mo tax xaar yalla jël ci la rek te ñeppay dem kon li gëna wër gëna wër moy sa borom na la jaral bu la yalla jaralé nak di nga akki ku melni ni Touba ku melni Cheikh Tidiane ku melni Abdou Khadir jilani ngir pa seen jëm ya ñom mais ngir ñu yobul ci yalla buñ bokké ag ci yàlla joxante loxo ño bok ci kiñ ag ño bok ci kiñ xam ño bok ci kiñ sakku ngeureumum ta dafa bok ci le yi lay xagn ngeureumal yalla xep sa morom ak doyadil sa morom na nitu yalla man adali waliyan fakhad azantu bil kharbi suñ borom mo ne kep ku sama ben waliyu la xare te ga bëgg yalla bëgg ngeureumal yalla lu la koy jaral dara du la ko jaral dañ ne nit ki boko ko boko bëgge téré jeyoxu ak yang-yangeeg ci màndi nangam tere ko butéel bi rek bu ko bàyyee rek dootu ko def waaye li fekk mi ngi koy jëfandikoo faw dana kayang-kayang lislaam noonu la mel lislaam bu tàbbee ci yow nga di ko dund faaw dana la bàyyiloo jëw dana la bàyyiloo rambaaj dana la bàyyiloo lépp lu ñaaw xataa julli gii dégg nga inna salaata tanha anil munkar dafay fekk lu ñaaw liñ ci waaye li suñu borom teg wala zikrullahi akbaru tudd yàlla moo gën a màgg julli kon buñ tuddee yàlla dëgg-dëgg tudd rek dafa mel ni médicament la booy jëfandikoo ngir lan mu faj ci yow wax lu dul dëgg rëy kañaan soxor lépp loo xam ne lu yàlla gërëmul la rek tudd yàlla dëgg-dëgg daf la cay jëlee moo tax boo seetloo turuqu suufiyee yi daanaka seen yoon dañ koo tabax ci tudd yàlla moom ngay bari lool boole ko sa xel di settantal kéemaanu suñu borom yi mu jural la bëgg yàlla goo xam ne foo ko natt weesu na ko koo bëgg lam bëgg nga bëgg ko dafa yomb gaa yaa ngi nii bari na ñoo xam ne seen soxna yi leen jaral kémaan la ndax dañ leen a bëgg di soxna yi itam am na ñoo xam ne seen borom kër yi jaral kéemaan la parce que lu tax dañ leen a bëgg di waaye soxna si moom moo ma teree nelaw moom laa bëgg nangam ak nangam bu bëggee bëggoo bu wootee doo wuyu bu nee def leen doo def mbëggeel gi lu koy firndeel mënta nekk boo demee ci mat ma honoré nii dégg nga sëñ wax ko nee na gis naa la ngay woote woo bëgg yàlla te di jëf lu yàlla tere taasil ilaah wa anta tuzahiru hubbuhu taasi mooy yaa ngi mooy ilaah yàlla wa anta tuzahiru te yow yaa ngi feeñal ne hubbuhu da ngaa bëgg yàlla mu ne haza lii de la amri waat naa ko ci sama dund fii xiyaas boo ko xiyaasee rek ba di on ñu fent la waaye mënta loolu dëgg bëgg yàlla di mooy yàlla sotti mënta ne koo bëgg inal muhibba liman yuhibbu muti on képp koo xam ne am na ku bëgg rek la mu bëgg da topp di kon boo bëggee yàlla topp li yàlla bëgg boo bëggee yonent bi topp saa salaam bëgg boo bëggee sa sëriñ itam yi dëgg ci yow lam bëgg da nga koy bëggale waaye yàlla na fekk nga xam ko boo ko xamul nag sa mbëggeel googu nit mën naa ñëw jëfandikoo ko nax la ci moom nax la dañ ne loo bëggul kenn ca nax fooyee sa pas-pas léeg-léeg nga gis ko xam ne gars yi dañoo bëgg Cheikh musaa rek boo duggee am na way yoo man mën ngaa woy Sëñ Tuubaa di mën ngaa woy Cheikh Tidiane waaye tantu Cheikh Moussa boo fi woyee koo xam ne xol yi des na faa am benn cër wu rëy yu fi Cheikh Moussa am boo leen bëggee yëngal noy def Cheikh Moussa ngay dugg rek léegi bass bi jaxoso waye fekk ay julit yu tok ngay wéy football kat ya mu dégg-dégg ni te mo ne gis nga niñ bañé loolu léeg-léeg dañ ñukoy naxé dugg ci waji wax wax wax te lim mu bëgg mooy sa xol sedd ba nga jël li nga yor jox ko man nak lima yor damay xaar ki ma bëgg ma jox ko wallahi gis nga fi ñuy buñ ko talul dinañu jural jéyee joo xam ne ku ne ko tiim nii tiijaan buy bañ a gis murit murit bi bañ a gis te tegu ñu ko fenn sëñ Tuubaa ku ne xam ne ne bu dajee ak Alaaji Maalik yow mal xiyaam dañuy joxante loxo lëngoo la ñuy def nekk ci ginnaaw sa bi sallallaahu alayhi wa sallam Abdou Khadre Jilaani ñoom ñëpp nii lañ mel jamaa anallahu biim yow mal xiyaam lii la sëñ Tuubaa ñaan ci Masaalikul Jinaan yàlla na ma yàlla booleeg ñoom yow mal xiyaam gaa yi baax yi léegi ñun ñu bëgg ne doon ñett sëñ bi tijaan bi ne doon ñett Cheikh Tidiane ak ay mbokki tijaanam ñoom daal naan coow àjjana murit ñoom fu jëm loolu kenn xamul lan la werante goo xam ne kéemaan la bëgg a tuutil sëriñu jàmb bëgg a ngandal amul njëriñ li am solo mooy ngandal ci sëñ bi yow defarool ci sëriñ bi baaxal ci sëriñ bi koo gis mu feeñal ak mbañ ci moom ak doy ci moom xamal na yàllaa ko ko nattoo waaye sëriñ Tuubaa du ku ñuy bañ Cheikh Tidiane du ku ñuy bañ Yunus du ku ñuy bañ dañ leen di réere dañ leen di umpale nit dana xiif bay bëgg a nga woo ko ci añ mu neex xam nga bu la wuyusiwul yow yaay xam ne kii dafa feebar léeg-léeg nag yaa ko dimbaliwul yow naxanteel ak moom koo xeebal soo mbéem mu doyadal sa soos waaye boo ñëwee ne ko sëñ bi nag sa soom bi ngay añee nii mooy la waaw nga barkeelook moom tuuti rek ñaari tibb rek ne ko tane na nag waaye yor naa lu ko gën fuuf kañ dem ak ko nga xool li ma yor ko gën fuuf mooy la xaa anam nga ne ko nañ dem nga xool bu la neexee sax mu indi ko fii jarul ngay jóg xaaral daal di dem jëli sa ndab lu neex li jox ko nga xool bu ñemee bàyyi sombi bi waaye fekk kook sëmi nga ne ko soon sëmi bi du dara xamoo ko la ko yekkal waaye tooñ na la fekk moom ki ko yekkal fa mu ko teg yow tegu fa yow ki la yekkal mais bu ñëwul xewlu si yaa ko tooñ te li mooy am xeebal koo xeebal kilifa mu xeeb sa kilifa yàlla sax nee na bu ngeen demee ci yéeféer yi bu leen saaga seen yàlla ya kon danañ saaga sa yàlla te su boobaa nag wax dëgg yàlla danañ tooñ ci guur ak waxal yaa am ci dugal ku ne sañ naa laa bire wax li sëñ Tuubaa indi wax li sañ tubaa jàngale kum ñor mu ñëw jël si ko ku ko jël siwul sëñ bi lim am doy na ko ndax li ko yàlla jox da koy sante boromam waaye bëgg a kilifa yi gars sa kilifa moom ñu wàccee sa kilifa rek nga koy jural koo saaga yaayam mu saaga sa yaay parce que day bañ ko saaga yaayam li képp la doyadal kilifa mu doyadal sa kilifa li am solo ne mooy génneel sa kilifa lu gànjaru lim indi moom mu génnee kilifaam lu gànjaru lim indi bu dee kiif kiif ku ne jariñu yar ak teggin di feeñ njub di feeñ leeru yàlla di feeñ gindeeku di feeñ maarifa gi dañ ciy waxtaanal ñoo xam ne daanaka ay Inde lañ jóge fa lañ ko jëlee mhm. am ñoo xam ne États-Unis lañ ko jëlee ñoo xam ne France lañ ko jëlee ngeen di waxtaan ci internet bi di déggante mu leer na les Cheikh Moussa jox moom lañ ko jox ma mu koy dund ni koy dundee ku ne ngërëmal yàlla di sa pas-pas te kenn xamul sax sa sëriñu morom man ma ma Cheikh Moussa ma neex rek ma ne ku dul Cheikh Moussa mënu koo xam ne kenn ku dul Baye koo xam ne neel kay ma koo xamal xanaa. waaye yow xamal sa bopp am na ku ko xam te boo ko ne woon Baye Niass xamu ko boo ko ne woon Cheikh Moussa xamu ko yàllaa yor mbiram tas la Cheikh Moussa waxoon dara yàlla xajul fenn saxul fenn dëkkul fenn yàlla dafa yaatu tënkuwul luy jeex la ñuy jiiroo naan boo yéexee mu jeex waaye yàlla ku a jeexal tijaan dañ ko mën a jeexal murid dañ ko mën a jeexal jullit yi sax mënuñ koo jeexal te ku ci sàggan wallaay ki nga jàppee bi mën naa tàbbi àjjana bu ëllëgee yow ngay lijjanti noo duggee mm-hmm. Mm-hmm. de boo yaakaar ne sa julli yu bari yi sa naafila yu bari yi sa maanu gi sa nangam nangam am na ñoo xam ne yée leen di ma tàbbal leen sa sawara seen julli yu bari yeeg seen koor yu bari yeeg seen maanu yeeg jàng alxuraan yi xam nga lu tax moo leen yóbbu ñi xeeb koo xam ne nit yàlla tigi ba mu jural leen meram yàlla mën a julli mën a woor mën a naafile mën a jàng alxuraan di jokko ko ki ndànk-ndànk di dox jàpp ne am na foo toll ci yàlla xeeb waaye da nga xam ne sax mandikat la wala sàngara la te yàllaa ko ko natto da nga xam fu mu mujj ñaata naankati sàngara ñoo mujj nekk ay góor yàlla kamaal ñun ñi fi toog ku fi rey nit mën naa bañ a am yonent yàlla Moussa reyul nit ginnaaw ko lu ko yàlla def yonent boole ko ci ulul azmi yi xamal sa bopp waaye bul xam gaa yi fa ñuy mujj maanul ci yàlla ak ay jaamam koo mën a laa laabireel koo mën a wax dëgg waxal dëgg te yàlla képp tax waaye bu mu doon waxu dëggu xeebeel gindeeku naa ci yàlla xam naa yàlla ko xamul yàlla booy dee dem sa yow foo jëm sa xam yàlla gi lu yokk yàlla ak lu mu ko wàññi que ça mën ngaa tëkku nag ne yàlla kat moo ne ci ngay taxaw yàlla li wax sa nga cee taxaw wax ne lii ku ko def boo dee dem sawara dégg nga sëñ Tuubaa na ko ci masaalik wa in takun aakila risqullaahi wa anta fi kulli zamanillaahi walam tatub li talabil xufraani mujtahidan nee na fa daaxilu niiraani booy lekk wërsëgu yàlla wii waxtu wu nek nga nek ci tiaxan nek ci bo bañu a tuub ci sa borom subhanahu wa taala te farlu sëñ tubaa neena boy de di dem sa war dafa deppok li yalla wax moy yalla tiaxan bo dem lak la tak yalla neena kuma duggal sawara dugal sa war toroxal na kuma ma baromam sa war rek toroxal na te doomu wax teug yalla niko boromam terale bu ko don setantal diko chambar dara lu koy tabal sawara ndax mo koy jural meram yalla, dara du ko ko jaral ci kaw suuf sa baay bu takkee yaay dara manquéwul ci biir kër gi lekk baa ngi ñëw waxtu naan waa ngi ñëw waxtu boo tëddee tëdd fu nooy boo dee nit war nga ne bàyyi jëf ne ndey jëf mooy dugg ci waañ bi yàlla suñu borom lim ñu defal moo gën li ndey ak bàyyi defal doom ndax ndey ak bàyyi li ñuy defal doom sax dafay dugg ci li yàlla defal jaam yàllaa leen roof yërmande yàllaa leen roof cofeel ba yow ñu lay yërëm di la yiir sant leen nag ñu def loola kon nag boo fonkee ndey ak baay ndax fi jaar ak yow noo war a def yàlla suñu borom léegi nag nga bàyyi fi yàlla xool cëru yàlla na di jël nag koo xam ne li la yàlla defal la ko yàlla defal jël cëru yàlla na bëgg ko jox moom loolu moom du nangu yàlla du nangu du ko nangu na nga xool ci suñ kër yi rek bàyyi def lépp man maay taaw léegi nag am rakk joo xam ne gis na ne maay taaw maay mag rek bàyyi xaw maa jox cër rek mu bëgg a jël cëru bàyyi jox ma ko man dinaa ko du ma ko nangu bàyyi du ko nangu xalaatu ko moo tax gis nga sëriñ si kilifa yi niñ bañee shirku ndax yàlla moom la gën a bañ yàlla daa rëy rëy gi foo ko natt weesu na ko ñi fi nekkoon di yàlla yàlla xoolal yàlla mu jëm ñoo xëy ñoo xam ne duñ moom amul sax ma dem te ñëw moo tax kilifa gi mat kilifa saa su nekk boo ko àkkee mu delloo ci yàlla ومن على الاله دلك فان خالفته فللمريض تطمئن سنت وانا كل تكتال يالا بو ووتك موم تي سيطان نغا ديب مو نه نك كيغا خامني مولاي يوب تي يالا موم واتنا كيلا يوبول تي يالا داوكو لي كيب لا نخن تيف لي موي فخي اك جي سن بروم لاق غرمم تي في لا شيخ موسى ووتو دو شيخ موسى كيب فو واي كوم موسى ووتو لي كيب كيب لا ووتو ووتو لين لكن كل حزب بما لديهم فريحون لولو القران كو كين دوكو باج كورل وو غيس غيس نا ني لا سا كورل وي سافي نيور لا بام غنا لا وينال وودول موم جابال ني موميت كورلام نون لا ميل سي موم سكو ديفه نك بولا ليرينا لام نيك اي مبوسور لا دارا دو تا نجارين لا بيري كو نداخ لولو يوت سالام داف نيكو ديك جوليت جوليت ما مبوكام سان نكو لا بيري bu jàppee ne lim nekk baaxul sax na koo laabire bu gisee ne li nga koy wax dëgg la mu fekk si la fay laay alhamdu bu la fekk siwul maanul digganteem ak boromam lu jàpp ndal la waaye xëccoo bi xiiroo bi ŋaayoo bi werante beeg nangam ak nangam te werante sëñ Tuubaa ñaata yoon la ko tere fen nga wax ko nit ñaata yoon la ko tere demal ci nëw ju teggin gi ni mu ko jàngalee kéemtaan la kon sant yàlla bu wér bi jamono tollee fii yàlla defal ñu ak ràññee Cheikh Moussa bi ko waaj a àkkee ni ko damaa dégg diw mu ne nangam ma dégg diw mu ne nangam ma dégg diw mu ne nangam te kàddu yooyu bu ma ci dëggal weddi ba ca des ki nee na samay ndëggu teg naa ko ci mbaggi mbooleem góor yàlla yi min aadama ila nafxi fi suur la ko dalee ca aadama ba keroog ñuy ëf ëf bufta bi kii ne yàlla wammatal na ma loo xam ne mësu koo wammatal kenn te du ko wammatal kenn ba faw kii ne kenn du xam yàlla te dugg ne sama bunt bii ci nga ñëw waaf fi ci nga ñëw boof fi te boo dëggalee kii weddi ka la rek Cheikh Moussa dana ko wax yooyu du seeni wax waxi pays ba la gis nga lii ku ci gindeeku am na werante boo xam doo ci dugg doo bokk ki nga xam ne daa dégg wax ji mu déggee wax ji ci jëmm ji bàyyi koo képp daal di ko fay tënk nag bés bu ko déggaatee ci keneen dégg gi mu ko dégg ci kii moo tax day weddi kële fekk ne ki wax fii mooy ki wax fii boo ko xamee da leen di bokk dëggal ñoom ñaar waaye boo bokkul nag ca ñi nga xam ne miir nañ loola xam nañ loola gindeeku nañ ci da gëm kii weddi kii rek te boo weddi kii mën na laa jural ngaañ goo xam ne kii bi mu lay wax lii nga weddi kële taxutoon taxutoon di moo tax dafa màgg goo xam ne ci baatin ku ko deful ba mag ñay werante boo yeboo toog rek te bañ cee dugg fa xul kama xaala zaki abdul waduud kàllaamul su lastu afhamu li ana ne anaa ana wa hum humoo waxu góor yàlla yi man dégguma ko ndax man maay man ñoom ñooy ñoom daal ci maanaam li képp la Cheikh Moussa nag kum nopp ci yow lii la lay xamal xamala sa borom xamal li sa borom gërëm ne la nag sama jaamu yàlla gii bu ko benn taalibe yaakaar yow man xiyaam ku ma fa yaakaaree dara dara laa la fa yorelu yi da koo teel leeral li muy bañ mooy nga gëlëm limi bañ moy nga xaar ci mom lo xamne ci loxo yàlla la ne xakk sa yow mal xiyaam gën jëm ben talib mu fa yaakaar jaamu yàlla gi may jaamu yàlla suma ko yàlla fayee amna ci soxla bu ko ben taaliba yaakaar waaye lu ci tek lima sekk ak yéen moy xamaleen yàlla xamaleen nuñ koy jaamo bu ëllëgé yàlla bokku ñu fay la wax bu ëllëgé yàlla bokku ñu fay kon mom gis nga lim la bëgg xamal ci la ne bo ci nekké ci la ne bo ci nekkul ci la ne dafa wàcc de xamna yàlla mi ngi jaamu yàlla day fexe ba nga xam yàlla di jaamu yàlla ni mi jaamo yàlla bu ëlëgé yàlla bokku len fay mom nak bu ci nekké nekko ci ya bo boole sa bop ci mo way bokku goré li nak nim valable ci Cheikh Moussa non la valable ci seigne Touba seigne Touba néna tallahi tallaahi ku ne xam na ne wat la billahi wallahi tallahi seigne Touba dana tallahi laysa yanfau cherchu hada inda xulul ramsi xeerul huda seigne Touba néna ku ñu yor ci bàmmeelam dara du ko fa jariñ lu dul fii la ko sëñ bi waxee fii la ko waxee ne wax naa ngeen dégg jëf naa ngeen gis bind naa bàyyi fii sama ginnaaw bu dara fee seen bët du ma layoo fii ba noppi di layoo yow man xeex moo tax ku koy xaar ca pénc ma da ngay waru lu fay wut ñun ñu tooñu ñu amuñ mbokk muñ kalaamee lu ñu wut tribunal boo xëyee doxi say soxla ku jàng tësuru si xaar dinga dégg sëñ tuwaay ne yàlla taxal na ma xisaab du ko ñuy xisaab du ko ñuy réglé waaye yemale ko ci boppam dafa rëdd yoon woo xam ne ni mu ci jaare boo ci ni jaaree mucc ci xisaab waaye dañ fay bàyyi li ñuy musal ci xisaab na nekk ciy werante nag bëgg a wutal sëriñ bi daraja ak nag yow yàlla jox na ko daraja ji ba noppi yow fexeel am daraja ci sëñ bi te mooy topp lim digle won ginnaaw lim tere sax ca rek lii mooy li gën a wër mooy li gën a wër Cheikh Moussa fii képp képp la ñu woo nekk ay jullit xaqan ay taalibe yoo xam ne ngërëmal yàlla mooy seen pas-pas buñ wéete ak buñ ko lii nag mooy li raaf ci jamono mooy li néew a gis koo gis mi ngi wut xaalis mi ngi wut dollar mi ngi wut franc CFA mi ngi wut compte banque ajinaas nangam nangam jàppale ma ci compte bi waaye léegi sa compte àllaaxira loo fa def loo fa def te suñ compte banque yi ku ne boo sañoon mu dolleeku su fa 1000 francs nekkee bëgg nga suba 5000 ginnaaw suba 10 000 1 million nangam ak nangam waaye xaalis bi macha allah fa dara wax ne dërëm ba la ko yàllay jox wut ngërëm a tax mm-hmm. nee na dërëm ba la ko yàllay jox nee na wutee jikko ngërëm. kese waaye dajale ko ngir tiitaru rek alhaakumu takaasuru lu ci yàlla teg xattaa zurtumul rek kallaa sawfa taalamuun suma kallaa sawfa taalamuun kallaa law taalamuun gis nga ñetti taalamuun di ngeen xam di ngeen xam di ngeen xami waaye taxul ñu yeewu rek mun a ina ina insaan li rabbi la kanut doomu aadama ku ko gën a doy waat diggante ma borom kéemaan damay faral di wax ne ñun liñ moom liñ moom ñun te dug moomeel sax ak ndénkaan la ñun liñ moom bëgguñu amul benn doomu adama bu bëgg lim moom moy ko téléphone bi bu lay moy ngay réparé ji bo bëssé bëss ñëwul rek tactile bi yaquna rek nga sété ko ci tan ngir mu réparé ko ndax bëggoo moom moy la auto bi bu la moyee nga taal takul nga né maan kay dibali ma gaaw fexel mu tak bu mo moy wa légui yow no def ak sa borom bi la moom yow ndax yaa ngi réparé sa bopp yow ngir baña moy sa borom bi la bind té ni la yalla momé mo gëna mat momel foofu ni nga momé téléphone bi ni nga momé auto bi am na ñoo xam ne nag ñooy maan wala réparateur ci yàlla réparateur ci yàlla boo bëggee bañ a mooy sa borom ñoo lay réparé ba doon mooy yàlla loolu mooy sëriñ bu mat sëriñ moom lañ yàlla defal mooy Cheikh Moussa Cissé njàmme boroom daaru ci ñun mm-hmm. yàlla nañ ko yàlla fayal wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala